salam sama gars yi ziar j'espère que yéen si man magi cool euh, di wax rek képp à que nga abonné té activer cloche bi ndax euh, loolu dina permettre vidéo buñ rek di nga euh, et que voilà quoi bu leen abonné n'hésite pas parce que vidéo yu am solo lañ fi def que ça soit analyse équipe nationale Sénégal performance suñu gaynde yi euh, vidéo ci bind suñu découverte et tout ça donc abonné leen fekkee bëgg ngaa gis euh, genre vidéo yi noonu donc nag ñu ñëw ci match euh, bu Bamba Dieng parce que équipe de di Lorient daf doon football tey Ligue 1 bu France ak moom ak Touré 3 donc ñoom ñoo gagné 2-1 Bamba Dieng tamit il a été buteur aujourd'hui mais mën nañu wax buteur malheureux parce que dafa jënn ci blessure mu nekk loo xamante le eh, lu lu lu lu metti la lu difficile euh, parce que Bamba il a euh, commencé au na di relancer au waat parce que ku on sait que ne Bamba Dieng euh, difficulté yi mu dund faire que Marseille ñëw fii Lorient aujourd'hui mu bëgg commencé relancer au waat donc double deuxième en ci saison bi ak Lorient foofee ca Ligue 1 France mu nekk commencé woon nekkaat ci lancé bu baax ah, far blessé kon loolu lu métti la lu jafe la mais j'espère que euh, du nekk blessure bu garaaw on espère ba xam euh, et que loolu lañ koy ñaaral mu nekk blessure boo xamante ne du nekk lu garaaw et tout ça en tout cas tey ji dugal na bii bu rafet inenseignement boo xamante ne bii de d'un vrai attaquant moom la dugal mais fi lañ jëm ak yéen di wax wéy di like wéy di commenter jaa ngeen jëf.